aousubillah min asheytaani irajim bismillahi irahmaaniirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nuy seetaan ginnaaw sant yàlla julli ci yonentam bi ñaanal sëriñ muhammadul muntaxa suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di siyaare baax di ñaanal alxaaji abdul fata mbàkke ibnu seex amadu fadal yàlla may ko fanu gudd lool ak wér ba li mu yéene liggéeyal sëriñ tuubaa lépp mu defe ko nam ko soobee di siyaare bu baax mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi nuy seetaan ak fu mu mën nekk ci réew mi ak ci bitim réew tey ji nag ñu bëggoon a waxtaane kenn ci sunu site bi ñuy wax 24 actu te nu fas yéene ci ànd ak yéen ci émission bi nuy wax taxaw seetlu tey jii nag ñu bëggoon a taxaw seetlu ku mag koo xamante ni ay jikkoom ak dundam lépp ay ngëneel la muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu taala an di ñaanal Serigne Sidi Mbacké yàlla sunu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko ak mboolem njabootu Cheikh Abdoul tey nag danoo bëggoon jël benn point ci dundu Cheikh Abdou Lahad ñu waxtaan ci loolu mooy lan mooy communication walla woote wala waxtaan ak nit ñi wala wax nit ñi dégg la loolu nag <clears throat> tey ci lañ bëgg a waxtaan Cheikh Abdou di dafa mel ni ak wax dafa mel ni lu am solo la ndax wax mooy dugal nit ci lislaam mooy génn nit ci lislaam mooy tax ab sëy takku mooy tax ab sëy tas lu bare bare bari mi ngi taxaw ci kàddu yàlla daf koo fonk lool ba yonent yi mu yónni sax daf leen wax ne leen na ngeen ma jottilil na ngeen ma jottilil sama kàddu na ngeen jottali seen kàddu kàddu googu ñu doon jottalil yonent bi sallallahu alayhi wa di ko jottalil suñu borom tabaaraka wa taala mu yónni ay yonent boo delluwaatee ci yonent yàlla musaa nga xam ne daf suñu borom da ko yónni waaye yàlla dogal na dafa nosoon baat bi dafa nos ba mënut woon a jàllale kàddoom ndax kàddu bu fekkee da ko bëgg a jàllale am na yu lay gàllankoor boo dëree doo mën a jàllale sa kàddu boo nosee doo ko man boo baree doo ko man boo leebee man ni man doo ko man bu sa baat di riir wala muy ji wala baat bi sew wala li ngay wax duñ la dégg bu baax loolu dina tax sa message du jàll moo tax sëñ Moussa Ka ne ko barul leebul barul dotamul nosul làmmañ taqul seen jul sewut fa yàlla na mu ko waxee nee na yonante bi salaa salaam yooyu nga xam ne day gàllankoor nit moom yonante bi amu ko woon yonante bi moom baatam loxut sewul seen jul ah, ni mu ko ko waxe Cheikh laat ñu bëgg a waxtaan it yàlla daf ko dimbali ci loolu mooy baatam sewut loxut leebul dërul kon yàlla bu la bëggee jàllaloo message am na lu tax mu bëgg la ko jàlle gis nga ne yonent yàlla musaa bi mu doto dotamee dafa wax yàlla ne ko li nga ma bëgg jàlleeloo ak li nga ma bëgg a defloo sama baat dafa dotom man mënumaa wax damaa bëggoon nga jël sama rak nga defal ma ko yonent muy Aaroona mu jàppale ma ci woote bi ba Aaroona moo ko ci jàppale kon foofu liñ ciy wax luy wax ne nit mënulul nit dara yonent yàlla Moussa moo tax yonent moo tax Aaroona doon yonent kon kuy wax ne nit mënulul kenn dara kooko daa ñaan te yonante moo gën a foor sax raxmu la ëllëg yomal xiyaam ndax yonante yi ñoo ko fay def ak ñi nu gënam euh, Cheikh Abdou Lahad nag dafa doon koo xamante ni waxam dafa amoon njariñ ni nga xam ne danoo dajale alxuraan bind ko dajale wax yu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax yi yi alxuraan wax yu de bind ko ni lan dajalee waxi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam addisam waxam taanam yëpp bind ko waaye ni lan dajalee waxi si Abdou Lahad Mbacké yépp bind ko loola kon day wane ne waxi si Abdou Lahad dafa amoon importance ni nga xam ne ni la alxuraan amee woon njariñ addis amee ko njariñ ni la waxi si Abdou Lahad Mbacké amee woon njariñ moo tax waxam yépp bind nañ ko moom rek moo ci am loolu koo xamante ni say wax bind nañ lépp loo xamante nii daa nga toog di ko waxtaane bind nañ ko def ko ci bibliothèque si Abdou Lahad bu mosaana wax ne asalaamaaleykum jàpp naa kenn kuy romb ku du taxaw bu doon sëfoor buy dawal dana taxaw istobe bu doon koo xamante nii dafa nekk ci soxla di waaxu di dem dana taxaw ñëpp danañ jox àq tamit déglu bi àq déglu bi mooy ñoom ñëpp dan naa groupe ku ci nekk jàpp ne sa morom boo yëngutoo sax am na loola raw ci waxtaan wi ñëpp taxaw déglu ko su noppee ba noppi la nit ñiy njëkk a def mooy alhamdulilahi rabbil alamin ku ci nekk day jox sa moroom loxo yëg ne liñ doon déglu ko dugg na ci seeni xol loolu nag lu am am solo la message bi ngay jàllale boo noppee ñi nga ko doon jàllale yëg ne ñoom ñi nga doon waxal dégg nañ li nga doon wax dégg nañ li nga doon wax dégg nañ ko déglu nañ ko waaye dégg nañ ko te lay tax nga xam ne danañ ko jëfe mooy alhamdulilahi jën cay teg moo tax kon ku ci nekk xamoon waxam ni mu kéem wax nag daana wax ne képp koo xamante ni yaa ngi wax ñu lay déglu ca ña ngay waxal yow mursal nga boo ko yëgee mursal nga boo ko yëgut yàllante woon nag nga xam la ngay wax waaw ndax nabiyul mursal du fi jóg mukk képp koo xamante ni yaa ngi wax nit ñi dina déglu na nga ne mursal nga ca ña ngay waxal yellante woon nag nga xam la ngay wax Cheikh Laat nag dafa xamoon li muy wax xam fi mu koy waxee xam jamono yi mu koy wax daana wax ne li nga xam ne moo di kàddu dafa mën a yeewu nit mën a tinki nit maanaam li ma bëgg a wax dafa mën a yéegal nit ba ca niveau ba ca kaw nit ñëpp aj la di la xool waaye dafa mën a detteel nit sëñ bi nag ay kàddoom bu ma saan tàmbali daana ko def ay tomb ndax ki nga ñi ngay waxal li nga bëgg a wax ak ñoom war na nga xam ñu xam nan nga koy waxee ñoom ñu mën laa dégloo noona daana wax na tey de sama waxtaanu tey ci ñett la jëm mooy ci yàlla mi nu bind di suñu borom ak yonante bi nga xam ne kenn mënta ñu am dara ci moom kenn mënta am dara ci yàlla te jaare woo ko ci yonante bi beneen bi koy ñetteel nag mooy waxtaane ci sunu jàmbaar ji nga xam ne mooy sëriñ Touba daal tàmbali nuyoo daal di tàmbali wax yàlla yàlla mi nga xam ne ku ko jaamuwul wax yonante bi nga xam ne ku ko toppul li nga bëgg doo ko am waaye Serigne Touba mii nga xam ne nag moom mooy sunu yaakaar tey di sunu yaakaar àdduna beneen bi ci des daana waxtaane ci li ma gën a itteel mooy taalib yi taalib yi ni mu daan communiquer ak ñoom lu jéggi daye la ci masala liggéey mën na maa wax ne bu masaan a tàmbali benn liggéey ci lu mu mën a doon université bi wala mu doon ci jumaa ji wala mu doon ci lu mu mën a tàmbali mën naa koo tàmbalee ci bu tàmbali woon tey comme jumaa ji moo ko yokk mu ne jumaa ji kat asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fas yéene na maa am liggéey boo xamante ni fas yéene naa ko tàmbali muy seet naa jumaa ji nga xam ne mooy jumaay Tuubaa ni biir gi dafa xaw a xat ma bëgg nag caa dolliwaat loo xamante ni bu tollut ni jumaa ji tamit moo koy ëpp seet naa ko ci ñetti xibla yépp muy xibla gànnaar gi ak xibla saw gi ak xibla saalum gi loola nag waxtaan naa ci ñi ma ci war a waxtaanal ñépp ba ñoom ñépp jox nañ ma seen kàddu waxtaan naa ci entrepreneur yi ko war a liggéey ak ñi ma ko war a liggéeyal ñoom it seetal nan ma ko bi nu ko seetee ba noppi nee nan ma nangam la war a doon ci xaalis loolee a doon ci xaalis tamit seet nan ko contrat ba yi tamit signé nan ko ba wax nan ne fukki weer ak ñaar ci leen koy liggéey bu àggee danañ ma jébbal samay caabi man nag loola la ma am lépp def naa ko ci nangami million la wala nangam milliard la ma am lépp def naa ko ci ku lu ma ci waay jox ma def ko ci bu nu àggee daal ne asalaamaaleykum wa rahmatullah xoolal si ab ni nga xamee ne ni la waxe communication nit ñi nga xam ne xam nan léegi liggéey bi kañ la tàmbali xam na ni tamit kañ la liggéey bi àgg xam na contrat bi xam na nangam bu nu demoon ba ca biir liggéey bi mu am lu ca ma nangu tamit lu ca échec wala lu ca àggwu nam kii day jëlaat rajo bi communal loole ma leen fi waxoon ca weer sàngam ca liggéey ba la ko taxawal ba léegi àggut nangam ak nangam la ak nangam ak nangam loola nag maa nga ci walla nangam xoolal communication boobu nga xam ne daf koy communiquer ak nit ñi ñun ñëpp danañ xam nangam loolu nit ñi am cofeel ci moom ndax day wax ak ñoom lu nu mën a dégg di wax ak ñoom fu ñuy dégg beneen bi ci desaat ci ni daan indee murit yi tàmbali na fii liggéey boo xamante nii daf koo tàmbali daan ne am na liggéey bu ma bëgg a tàmbali ngir liggéey ko waaye nag xam naa ne at mi melu at melu na at daan mel na nawet yi daan mel at mi melu ko ndax sama gerte daaw nanga mi bërigoy gerte la nanga mi bërëm ren jii nag gis naa ne sama gerte àggul ca loola waaye xam naa ne nawet bu nangu moo gën xol bu nangu moo gën nawet bu nangu te seeni xol nangul na sëñ Tuubaa murit yépp nga xam ne tey danoo ñàkkoon yaakaaroon mbay mi seen xol day naataat ci sëñ Tuubaa ndax xol dafa am lu koy dundal kàddu day dundal xol émence day dundal xol fi ngay nekk sax ak li ngay kii day dundal xol gis na ne docteur yi sax wax na ne maanaam fi ngay nekk nii ci wàllu garab ak yooyu dafay am lu muy jeex day faj nit sax nit bu wéradee dem ci ay fëloor ak ay nangam ak yu muy gis ay côté géej ak yooyu yëpp day jeexital rawatina kàddu nag kàddu gi nga xam ne yenn saa yi nit dina feebaram dina yokk ci li koy yokk mooy kàddu gu mu dégg goo xamante ni ku ko neexul la mën na caa jóge sax ndax bari na ñoo xam ne kàddu moo leen rey dégg ay wax rek ci lan daanoo kiris ci lan daanoo waaye sëñ Abdu xamoon na nan lay def nit boo dellusiwaatoon tey ci beneen message bu mu fi jàll màggalu Touba yaakaar naa duñ ko fàtte lépp rek day wax ni muy indee taalibe yi ak ni muy waxtaanee ñoom ak communication bi fii wax na fi ne yéen taalibe yi de gis naa ne waxtu wu nekk yéen a nga bëgg a agsi ci man waaye mënu leen a agsi leetar sax su ngeen ko bindee balaa agsi kenn du xam kañ la jàkkaarloog man gis naa ne loolu sax tax na jural na leen ci fenêtre yi ngeen di taxaw di ma yër ndax ñàkk mën a agsi ci man loola nag dangeen ngeen bu ngi leen ko jàppee xeeb leen ko wala dañ leen a doye di wala dara loola lépp mooy seen ñaan moo nangu ci ñu ci man te ñaan bu nangoo day sonal boroom loolu rek la waaye xam na ni yéen yéenay kër gi yéen fi njëkk yéen a fi nekk ba fi kenn nekkul kon loola du wàllu suufee leen xolal taalibe boobu li mu doon yëg da doon yëg ne sëñ Abdu xamu ko yëgu ko da ko doyadeel wala nangam ci ci fenêtre yi la koy gis waaye wax jooju day yëg ne moom sëñ Abdu Lahat kon kat ndekete xam na ko gis na ko yëg na ko ba taalibe bi day yëg ne daanaka joxati Cheikh Abdou Lahad loxo sax du ko itteel li koy itteel mooy xam na ne Sëñ Abdou Lahad xam na ko yëg na ko bàyyi na ko xel te taalibe bi saa boo ko bàyyee xel rek dana am cofeel gu dox seen diggante bokk na ci yooyu tamit <clears throat> problème yu fi mas a am dana ko régler ci wax kàddu te bu ko régler bu waxee ba noppi nit ñépp dana ki am na kilifaam gu mu doon waxanteel ne ko lépp loo wax de dëgg la xam naa ne dëgg la ndax ku nga ndax xam naa la ci dëgg waaye du caagee nag lépp loo dégg dëgg la nit moom mën na lum wax muy dëgg waaye loo dégg rek dëgg la loolu yàlla mayu ko kenn fii xam ngeen am nay jamono yu fi yëngu woon yoo xam jamonoy tiijaan la ak yëngu ak i murit waaye ñetti kàddu la ca wax ne leen yénde dafa mel ni ñett ñoo xamante ni ñu bokk ndey ak bàyyi kii xees kii ñuul kii xeereer kenn ka wàññeeku nag di tam moroom ma loola nag la koy xam ne loola mënu caa nekk ndax boo bëggee tam ñett ñu bokk ndey ak bàyyi nga bëgg a génn tam sa morom euh, wala nga tam ca kenn loola day xamal ne la nga doon wax day dellu siwaat ci yow kon nag li ma bëgg ngeen jàppante te nekk benn te ngeen ànd loola li muy jeexital mooy xoolal loola tey ni mu dikkee tarixa yi daanaka ci problème lañ dëkk kenn xamul nu mu toll te wax jii ci sëñ laat waxoon rek la mooy lii diw murid la diw tiijaan la mi ngi mel ni da ngaa xeeral kii xees kii ndax ñoom ñépp ñu doon woote ci yàlla lan doon woote bokk na ci kàddu yi Cheikh Abdou Lahad Mbacké ci kàddoom li mu daan waxe nga xam ne lépp lu muy wax bu dee ci état bi bu fekkee ne dafa toog mbooloo mu bokkut mbooloo mooma dana détaillé mbooloo ma bu dee màggalu Tuubaa daa nga dégg fii bu su waxee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu maa ngi nuyu sama mbokk yi nga xam ne ñoo bokk diine lislaam ñoo bokk kaabatu rasulullah ñooñe maa ngi leen di nuyu te nga xam ne li leen indi fii rek mooy lanu nekk fa ñoom mooy fas juddoo lillaahi ji nga xam ne moom lan nekkee moom lan nekkee foofa ñu nekk moo leen indi fii kon maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm seen ak cant lott naa ci seen fay lott ñi nga xam ne nag ñooy ndawi nguur gi nga xam ne dañ leen fay yebal te seen njiit njawat leen fi maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen gërëm ci màggal gi ak ci bis bi taxawaay bi nga xam ne def nañ bu noppee na salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi wax ak taanan ñi ma bokkal sëñ Touba di mbokki taalibe di suñuy mbokk ñooñu laa bëgg a waxtaanal xolo waxtaan wi ni mu détaillé ku nekk boo noppee di nga jël li moom taalibe bi dina xam ne wax ji fii la yem ak moom fii la tàmbalee ak moom ña ca desit xam ne wax ji moo ko moom xoolal bi fi Senghor nekkee ba fiy jógee Senghor tàggoo fu nekk mu dem fa ba mu dikkee daanaka mën nañ ne sëñ Abdou laata ci wax ak moom wax ju nit ñëpp dégg ne ko yow de bu la réew mi sante téeméer war nga leen sant ñaari téeméer ndax réew mi ñoo la fal te folliwun la ñoo la fal te warunu la te buñ la warut woon sab liggéey buñ la waroon sab liggéey du àgg buñ la folli woon sab liggéey du àgg kon liggéeyal nga réew mi bay dem waaye bu la réew mi santee fukk boo sante réew mi bu ñu la santee téeméer bu ñu la santee fukk war nga leen sant téeméer daadina na asalaamaaleykum daal di tàmbali wax ak sama bokki jullit yi xoolal loolu ci wàllu communication te communication fi ñu toll ni nga xam ne xoolal yoonu murit ni nga xam ne benn communication dong lan amoon muy xalifa général muy Cheikh Abdou Lahad beneen communication amu ci léegi nag ñaata junni communication ñooy génn ci yoon wi ñooy génn seere yoon wi ci wàllu communication ak wàllu téye ko ci loxoom fii bi mu fi aayee ci dëkk bi di fi aaye eh, tere yi nga xam ne mooy diggante tere yi nga xam ne dafa neexul yàlla daf koo njëkk a wax dafa wax ne ca discours bu mujj bi sax moom ma gën a itteel yépp ma itteel waaye discours yooyu yépp bu ci nekk matul ñetti minute ëppul ñetti minute dafa wax ne waxoon naa leen ko dellusiwaat naa tey di leen ko wax waxoon naa leen ko waxab kersa ak waxab sutura ak waxab teraanga tey jii nag dama bëgg waxtaanaat ak yéen bëgg naa lii daal ñuy aay ci Touba nan ko bàyyi ndax dëkk la boo xam ne dëkkub jaamu yàlla la dëkk la boo xam ne ki ko sancoon jaamu yàlla ak topp yàlla moo taxoon mu def ko loola nag bëgg naa képp koo xamante nii man nga ci ànd ak man baax na képp koo xam ne da ngaa nag nay tey nay tey sama bakkan laa la jox sama bakkan laa ci teg loola nay tey daan na aay naa fi tëgg aay naa fi fecc ay naa fi sabar ay naa fi tëgg sabar ay naa fi tëgg tama ay naa fi dorogo ay naa fi jaay yamba ak sàngara ay naa fi yooyu yépp détaillé xoolal loolu ni mu ko waxee nga xam ne bu ne woon ay naa fi naan lépp day dugg waaye yow mi xam dorogo am na koo xamante ni dorogo rek lay def am koo xam ne tox yamba rek lay def am koo xamante ni maanaam naan sàngara rek lay def xoolal ni mu détaillé waate ci wàllu tëgg beeg it ay naa fi tëgg sabar ay naa fi tëgg tama te yooyu tëgg yëpp ñi xam tëgg di ci yëngu ñoom xam nañ ne yooyu façon tëgg yooyu yëpp daa am loolu li muy jublu mooy kiy wax ak nit ñi xam na nit ñi ndax nit ki seexu tarbiya war naa xam nag liy jeexital ak société bi lan la ñuy dund li ñuy Seydina Omar doon wax naa lastu xab di wal xabdi laa yasdaxu ni du ma trian waaye trian mënumaa jaar fenn daana waxi tamit moom sëñëb laat ci fi ñuy jeexale kàddu nga xam ne euh, mësul wax ba noppi nga ne sëñëb laat lu mu wax wala lu mu bëggoon a wax wala man wax ji xaw ma ko boo xoolee ñi mu bokkal sëñ tubaa li ko ci yàlla may ci wax daanaka mayu ko ci kenn ndax boo seetlu woon ñi mu bokkal sëñ tubaa ku ci nekk di nga xam ne am na lu tax la nga bëgg a wax dëgg-dëgg am na lu la ko lu la ko gàllankoor ñenn ñi xam ne dañoo bar ñenn ñi dañuy riir seen bu ñuy wax day riir ñenn ñi bu ñuy wax day wax ji day suufee eh, ñenn ñi tamit day gaaw ba mu ëpp xañ na loolu lépp yàlla dindiloon na ko waaye lim ci ki yoon mooy suñ Tuubaa moo bëggoon mu jàllaleel ko message am ak suñ borom daana waxe tamit wax te daana wax ci wax lu am solo daana wax ne man su ma waxee ci kaw ñu ne daa mer su ma waxee nangam ñu ne dee xuloo su ne nangam ñu ne nangam te loolu lépp xam naa li koy def xuloo li koy waral xam naa ko duma ko def dara jaraluma ko lii koy waral mooy xëccoo daraja ak xëccoo wàllu àdduna te loolu dara jaraluma ko ci te duma ko def kon nag yooyu yëpp def ma day def rek man bu ma gisee lu naqari yàlla daf may naqari moo tax bu may wax moo kii te loolu bokk na ci kiy wax kiy waxi tamit war na buy wax lu ko naqari war na feeñ ci waxam war na feeñ ci kàddoom war na feeñ ci émence bi nga xam ne day wax yonante bi salaa salaam bu ma saan wax li ko naqari dégg naa sidditu jëm gi day génn ndax mer sëñ Abdu Laat buy wax lu ko ñor da ngay dégg gis ni muy waxe boo delluwaatoon ci bi muy waxtaan ci jaayante gis nga ni muy wax day def ni ba samp ñaari baaraam yi jaayant yonante bi salaa salaam suñu borom daa jaayanteek moom yon saxaaba yi danoo jaayanteeg moom ñun ñi danoo jaayanteeg Sëñ Tuubaa loola li mu lay wax mooy jaayante importance bi mu am ci diine kon daal lii leen indi woon tey ci Cheikh Abdou Lahad ci wàllu communication ci xamoon jamono xamoon ni tamit communication ay waxtoom daanaka mën nan ne lim daan wax lu néew la ci màggala Tuubaa korite tëbaski bu amee lu mu war a wax irsan it da koy wax ñu kii ko kon gis ngeen ni tamit bi mu fi amee loo xamante ni lu ko naqare la ci walla la lu naqari nit ñi ci yoonu murit daf ko daal di saafara gis ngeen ne bi mu fi waxtaanee korite walla tabaski dafa wax ne ñun kat rajo bii nga xam ne moo di rajo Sénégal dañu fay doyadil di fa doyadil taalibe yi taalibe yi jàmbat nan ma ko ba sonn lu nekk wax nan ma ko sëñ du nag dama bëgg tey man rajo boobu bu fekkee dañu dut ay Sénégal bu fekkee dañoo dëkkut ci réew mi ñu def rajo yi ni nga xam ne mooy rajo yi ci Guinée te waat naa ci yàlla ne bu fekkee ni nii lay doxe sama kàddu kenn dootu ko ci dégg bu weer feeñee ñu def nan sunu baay daan def yëgle ko ci jumaa yi ñu yëgle ko daan ne salaamaaleykum man waxtu woowu kees la ma fekk gis naa ñu toj ay rajo ci fi ñuy wax jàkkay murit toj nañ fa ay rajo laa wax ngir boobu murit yi moom jeexaloon nañ ngir bañ a déglooti rajo rajo bu dee rajo senegal waaye loola xoolal lam jural sëñ Abdu ci la murit yépp mer daal di tàmbaliwut ay organe ay média ay rajo ay nangam ba fi ñu toll ku nekk xam na ne communication jafeetul te loolu lépp bokk na ci sëñ Abdu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ak ñëpp